question pour vous question pour vous ak Mouhamadul Amin Ndiaye xaadimul muslimin bismillah wasalaatu wasalaamu ala rasulillah wa alihi wa sahbi wa man wala mbokk yi fu ngeen man di nekk ci àdduna ñu ngi leen wax asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu tey nag dañoo ñëw ak yéen ci émission bu bees boo xam ni dañ ko fa yéene tudde question pour vous maanaam ay laaj yoo xam ni dañ la koy jox yow mi déglu ah réponse bi nag yow yaay xalaat laaj bi bàyyikoowul ci man bàyyikoowul ci benn boroom xam-xam laaj bi mi ngi bàyyikoo ci ki nga xam ni moo la bind sàkk la moom la def la ni nga mel liñ bëgg a wax mooy dañuy tibbee ci alquranul karim ay question pour vous yow mi nga xam ni yaay seetaan suñu première question tey ñu ngi koy tibbee ci suratul infitar diggante aaya 6 ba 8 borom subhaanahu wa taala moo posé benn question jëme ko ci yow en tant que doomu aadama wax ni yaa ayyuhal insaanu maa garraka bi rabbika alkarim allazi xalaqaka fa sawwaaka fa addalak fi ayi suratin ma shaa rakkabak yàlla mooy laaj laaj bi ci yow la jëm mu wax ni lan moo la trompé yow doomu aadama bi lan moo la trompé ci sa borom kan moo la trahir ci moom yàlla moom mi la sàkk ku la war a trompé ci moom moom mi nga xam ni moo la fekk ci sa biiru waajur bind la bindin wu rafet yamale sa bind def la ngay du ku neex a xool fi ay suurati macha ak kabak mu xool nam ko neexe mu toftalee noonu say cër nga juddu doon ko rafet ku taaru nga juddu nag màgg dafa mel ni dafa am lu dox sa diggante ak moom loolu lay laaj moom borom subhanahu wa taala lan moo war a dox sa diggante sa borom ba trompé la ba la woo jëmale ci boppam mënoo ko wuy si moom borom bi subhanahu wa taala question la réponse bi nag dama koy bàyyi ak yow bu fekkee am nga ko ah mbokk yi wala nga am loo ci commentaire mën nga ko envoyé ci suñu numéro whatsapp muy numéro groupe Faaida TV bi soo bëggee tam ñu ajouté la ci groupe bi ba tey mën nga def signe wala nga wax ñu ajouté la ci groupe bi bépp vidéo bu dugal rek incha allahu taala di nga ci mën a jot ci numéro bi nga xam ne moo affiché muy suñu groupe whatsapp ñu jox leen dig ci beneen vidéo question pour vous wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu.